asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi dellu si waat nañu ci pàkk bi nga xam ne pàkkum ndigal la fas yéene fee amal jataay boo xam ne dañ ciy waajal ndigal li bàyyikoo ci Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir mi toogee jataayu xaadimu rasul yàlla na fi yàgg loolu te wér te yàlla defal ko ndam ci liggéey bi mu yëkkatiwaat kàdduy ndigal teg ko ci loxool rakkam ji nga xam ne yàgg na koo jox ndigal muy sëriñ maam moor Mbacke moom sëriñ Falilu mu feggoo ak bokk yi sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdou mi ngi fii toog ak sëriñ Bachirou Mbacke moom sëriñ Abibu ak waa rabitatul madaris bi nga xam ne ñoo jiite alxuraan ji kàddu yi war a doon kàddu yoo xam ne day jëm ci delluwaat ci sunu borom subhaanahu wa taala ni ñu ko baaxoo defee mu jox ndigal sëñ maam Mor mu war a soññaat bokki julit yi bokki taalibe yi. nu tàllalaat suñu loxo suñu borom subhaanahu wa taala war a dajawaat gaaw bi ñu jëm fukki fan ak juróom benn ci digg wi war a tolloog ñaar fukki fan ci weeru tubaab ni nu ko baaxoo defee fii ci biir Touba loolu nag moo tax dañuy jox kàddu gi sëriñ Mamoor Mbàkke moom sëriñ Falilu mu yëkkati kàddu yi sëriñ bi bu noppee danañ jox kàddu gi sëriñ Cheikh Mbàkke moom sëriñ Abdou Latif bu noppee ñu jox kàddu gi sëriñ Xaadi Jaxate mi nga xam ne mooy wax ci turu madarisul alquran bu noppee nañ jox kàddu gi waa daa daayira Muxaddamatul Xidma Serigne Fallou Mbacké mi ngi fi teew teewal fi waa daayira bi dina yëkkati kàddoom kon nag ñun ñëpp nu ànd déglu Serigne Mamour Mbacké moom Serigne Fallil wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baada wa ridwaanu min allaahi ala cheikh al bokki jullit yi bokki taalibe yi noo dellu siwaat di jégguli kàddu yi yi nga xam ne ndigal moo nu ko teg maag sama bokk yi nga xam ñoom laa àndal te yàgg koo ànd ak ñoom muy mbooloo mi nga xam ne mooy rabitul madaris alxuraaniya fi Touba te sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Fàllilu jiite leen ak sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëñ Habibu ak sëñ Xaadi Jaxate ñoom ak ñi àndal ñëpp ànd ak ba tey waa Muqaddimatul Xidma yi nga xam ñoo nekk ci jumaa ji nga xam ne fa la liggéey bi tàmbalee ba jàll fi muy jàll fépp ànd koog mbooloo mi nga xam ni kilifa yi nga xam ni ñoom la fi sëriñ bi jabal boole ma ak ñoom te yàgg maa boole ak ñoom lool ci liggéey yu mel nii muy sëriñ seex Mbacke mu sëriñ Abdou Latif ak sëriñ Mountakha Mbacke Pakala ak sëriñ Cheikh Khadim doomi boppam ñu di leen nuyu nag di leen jotal ay kàddu yu gàtt yu bàyyi ko ci sëriñ bi jëm ci mboolem taalibe yi waaye jëm ci mboolem jullit yi mu wax ni mi ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di leen jottale ay cantam ak i ngërëmam ak i ñaanam di wax ni dafa dellu siwaat di feddliwaat li nga xam ni kilifa yu tedd yi ku fi jiitu daanañ ko def naka jekk muy jàng alxuraan bi nga xam ne at mu jot danañ ko def ñaari yoon ci at mi bu njëkk ba di njëlbeenu muharram ba ca des di njëlbeenu ko rajab waaye bi ci des di boo xam ne bi ñoom ñoo koy jagool seen bopp saa buñ toogee ba xam ni àdduna soxla na ko réew mi soxla na ko doomu aadama yi soxla nañ ko jullit yi soxla nañ ko ñu joxe ndigal ñu teewlu tuub sàkk sarax balonte àq dellu ci téere bi nga xam ne mooy téere suñu borom bi nga xam ne lépp lu waay bëgg boo ko jàngee fas ko ci suñu borom dana la ko defal waaye dellu ci xasida sëriñ bi yi nga xam ni ay ñaanam la ak i toroxlam jëm ci yàlla nga xam ne mooy itam biir nañu lépp loo ci luñ ci sàkku nee na suñu borom defal nu ko ñaari sàll yooyu la wax ni dafa bëgg nu waraat ko gaaw bii di ñëw di fukki fan ak juróom benn ci weer wi ñu nekk di weeru digg wi te def ko defeen wu sell jublu ci ci njëlbeen sant yàlla ci xéewalam yu bari yi nga xam ni mi ngi nu koy defal ci saayir dina ko defal ci baatin mu ni itam dafay xam ni lépp lu waay di sukkandikoo di ci ñaan suñ boroom la ca gën a rëy mooy téere bi yàlla bi ni mu ko waxee ci ginnaaw la ca topp ndax yàgg nañoo wax ay aaya yu teg tegtale loolu inna lazina yatluuna kitaaballahi wa aqaamu salaata wa anfaqu mimmaa razaqnaahum sirran wa alaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabuur kooku suñu borom moo ko wax ci alxuraan kuy jàng alxuraan yonent bi itam wax ni képp koo xam ne ki jàng jàng nga aw araf ci alxuraan araf woowee dañ la ko fural ba fukk waaye daal di wax ni ci xër xëram ga ak yéen gu yéen judi ci jàmm mu ni du ma ni alif laam mim la alif benn araf la laam benn araf la mim benn araf la Sëriñ Tuubaa itam wax wax ci wax ci xasaayit lu baree baree bare ci njëriñu alxuraan ak jàng ko ak jariñu ci xiraatuha kansi wa jaahi wa isati uniltu biha kaw ne la dallaahi saa sidqi ak yeneen bayit yu baree bari yoo xam ne jataay jataay bi ma yëwu ko te xam nañ ko baax yàgg nañ ko fay kon nee na ci loolu la sukkandiku bëgg bu gaaw bi ak nama ko daan defee ñu bokk toroxlu ginnaaw buñ jégguloo yàlla seetal suñ xol laabal ko yéeneenti lu baax jéggaloonte sàkk ay sarax jox ko ñu ko aajowoo ñu jël téeréb suñu borom bi nag tàmbale ko ci jumaay Tuubaa ji lim yuñ ci luñ ci man lum gën a bare moo gën ñu tàmbale ko ci jumaa ji lu mu gën a feese moo gën ba àgg ci jumaa yi ci dëkk bi yëpp ak jumaa yi ci réew mi yëpp ak jàkka yi ak daayira yi rawatina daara alxuraan yi fenn fu nekk lu fu fa mën a jàng ci ay lim ñu jàng ko fa te jublu ca sant yàlla dollee sant yàlla ci xéewal yi nga xam ne mi nu koy defal dollee ñaan itam ñaanal réew mi ñaanal kilifa yi diine yi ñaanal njabootu Serigne Touba gi ñaanal jullit yëpp ñaanal adduna si yëpp suñu borom def fi jàmm def fi buñ ci jugee ca loola moom ñun ñun ci suñu bopp ñu wëlbatiku ñun tam ñaanal ko moom ci boppam li nga xam ni mooy yéeneem jure ji nga xam ne moo nekk ci moom te njàgg koo xam ci moom te moo di moom lim yéene yéene ko boppam yéene ko njabootu Serigne Touba gi muy góor mu jigéen yéene ko taalibe Serigne Touba yi yéene ko kilifa diine yi yéene ko julit yëpp yéene ko réew mi ci jàmm ak salaam ak xéewal ak njariñ lu taa dakk adduna ak àllaaxira ñun tam ñaanal ko ñaanam googu nga xam ne moom la yéen a bindee fi suñu borom ko ci lu kawe njortam mu nekk mu yàgg fi lool am gu wér ba sémb yim sémbal Serigne Touba mu defal mu defal ko nam ko bëggee ten fekk ko ñun ñëpp ñun ñëpp dañ ko bokk ñaanal loolu loolu mooy kàddu yi nga xam ni moom la suñu bi doon nañ ko nañ ko jottali su ko defee njàngum alxuraan mi ñe ko daan jiite ñoo koy jiite mooy waa rabita bi ànd ko ñe ko daan àndal ñëpp njàngum xasaayit mi sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Sohaybu moo ko jiite dañ ko dañ ko yëgal moom itam mu yëgal ko na ko daan yëgalee defee ko fa mu ko daan defee ndax ñaar yooyu sëriñ bi neen amul lu ko ëpp bii mooy alxuraan bii mooy xasaayit yi te sëriñ Tuubaa ñaar yooyu lañu fi bàyyil nee buñ ci jàppee lépp luñ bëgg nag àdduna ak àllaaxira danañ ko am nañ ko daan waxee itam nag buñ jàpp ni dañoo dàkk ay bis rek da ci jàng alxuraan déedéet alxuraan fii ci Tuubaa nañ ko waxee woon bis bu set ay kuréel la ngi yoo xam ni li ñuy wàcc ci alxuraan mën naa yor mën naa adduna si waxuma laa réew mi waxuma laa dëkk bi kon lii dañ koy def rek ngir lislaam moo moo demee noonu lépp lu lu lu ko yitteel su ko defee da koy defaat da koy defaat ba ci julli juróom julli juróom kenn ku nekk xam na ni jàkk jëla jë gën a jege nga koy defee bisub set waaye bu ajuma jotee dañuy boole ñëpp yóbbu nañ ci jumaa yi ñu julli ajuma bu korite jotee ñëpp daje ci benn béréb julli korite bu tabaski jotee noonu kon ndaje yooyu noonu rek mooy mooy njàngum alxaal mi nga xam ne moom la sëriñ bi woote na ko kilifa yu baaxee daan defee ñu ngi sant ñëpp ñu gërëm ñëpp di ñaanal suñu borom yàggal ko fi wéral ko ñu aw yàgg noo digal ñu yàgg ñu yàgg ñu yàgg topp ndigalam bi barakeel xadim wa isatil maxdum sallallahu alayhi wa sallam wa axiru dahwaana an alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sëriñ bi bokki taalibe yi bokki jullit yi sëriñ bi daa mel na sa kàddu gi doyoon na sëkk ndax jot na rafet na matale na lépp leer na tabaarakallah yàlla nga ko yàgg a jottalil ki koy jottaliloo loo yàgg a ànd liggéeyu sëriñ bi moom ñëpp nu liggéey bi sëriñ Tuubaa bi ba kenn ku nekk la nga ci yéene nga man ko ni koy waxee tabaarakallah lépp rafet na sëriñ bi lii rek la ko bëggee woon xam kon kàddu yi ñu cee dolli du bari kàddu yi soññee rek la ak gën a leeral xanaa nun bokki taalibe yëpp bokki jullit yëpp xanaa ndigal jib na te ndigal lépp sunu njariñ rekk la ab jullit ku ko ne jéggalul yaa ngi koy dimbale ku ko ne ñaanal sa borom yéen ngi ko ndimbal ku ko ne saraxeel yéen ngi ko barke te sarax boo xam ne day lambale addiye daa gën a rëy te loolu lépp daa am ci liggéey bi kon nag ginnaaw bis bi ni ñu ko daan santaane ni ñu ko ni santaane da bëgg kenn ku nekk noo ci daan jàppe nga fas ko yéene yokk bu baax a baax a baax sëriñ wax na njàng njàng meeg doxin lépp xanaa kon ñaar rek la ñuy fàttali bokki taalibe yi mooy wàlluy xéewal yi ñu fi war a andi war koo teral ñuy jàng lu ci waay daan def loo ca mën a dolli na nga ko dolli ndax lu ci waay def sa njëriñ rek lay doon ak li ñuy tuddee ab salax waaye ñu tuddee ko addiye ndax taalibe lu muy def ci Tuuba na ko tuddee addiye ndax addiye kat daa mel ne daa gën a rëy sarax dama mës a dégg ko laaj sëñ Sàmbay ne ko addiye ak sarax lu ci ëpp doole mu ne ko ki ñuy sarax ak ki ñuy jox addiye ni ñu wutee rek ni lañu ñu wutee ñoom ñaar kon li ñuy def nan ko jàppee addiye Sëriñ Tuuba am na ko mas te ne Sëriñ Basiiru mas ko wax ne ko te ab chauffeur la ñu jàppoon ko ay gendarme mu jàpp ko ci Fuuta mu ne sëñ Basiir bi bi muy waxtaan ak moom nee na ko lépp loo génne di sa poos war ko joxe ak foo ko mën a jëme jàppi ko addiyee Sëriñ Tuubaa boobu ba Sëriñ Tuubaa naa la ko fay kooku yërmande bi yaatu lool kon addiyee yi ñu war a andi fi ñuy jànge ngir ñu di ko dimbalee ñi ne ñi ko ñi ca ñu deew doole ñi loolu itam sëñ baa ngi koy fàttali ndax lu am solo la lu rëy la lu mën a yokk njariñ ci li ni njariñ li ni sàkku la kon lu ci waay man na nga ko def indi ko fañ ko daan indi ca barabu jullikaay ba daa nga fekk ña ko daan saytu muy waa Muxaddamatul Xidma te kenn ci ñoom a ngi fi xéewal yi itam ci biir jumaa ji la ñu daan indi ci wetu soow gi féete sorol sorol bu ndaw bi ci soow ci wetu féete kër sëñ Fàllu moom itam ña fa daan nekk danañ fa nekk te danañ ci wax seen kàddu xanaa nu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax wala berne yooyu ñu ngi ciy soññi bu baax xis xisbu tarxee lañ tàllal loxo ndax daan nañ ci dox jéego yu yaatu yoo xam ne ñoo ko daan waajal seen bopp tool ko seen bopp defar ko andi ko ñu ngi leen ciy séentu waaye képp ku ne ci dëkk bi te bésub keroog sa dépense bu kër mat dépense benn bi bàyyi ko ci kër ga ba ca des togg ko andi ko ci jumaa ji alxuraan jëriñoo ko bu ñu ko defee noonu dana yaatu dana matale te njariñ liñ ci di séntu dana ko yombal lool dana ko yàkkale lool ndax njariñ li moom biñ déggee ndigal li dafa soo ko rek la njariñ li tàmbalee tab bi ndax sëriñ baa ngi teewe lépp sëriñ moom bi sëriñ bi tax ñu di ko def mu jëm ci suñu borom umpale wuñ dara te yéene yi la ñuy tàmbalee fay bu jëf ci ñëwee ñu gën a yaatal pay ga kon nan tàmbalee yéene di fasoo te booba jëf ci luñ ci mën nu def ko. bu ñu jàngee alxuraan ak jéego yi mën a dox. jàng xasaayit ak jéego yu ma def te yàlla rek tax ak sëriñ bi nu bokk ci lañ cey fas ak di ko ci yéene ñaan jàmm ci réew mi waaye ñaan ndoxum jàmm nawetub jàmm bu matale bu barkeel bu ànd ak xewal yu yaatu yoo xam dañ koy jariñoowaat lépp ci réew mi ak ci jinni ji ak ci ci njaboot gi lépp mu tey dajeeg tawfeex sëriñ bi ak bu ndimalu suñu borom jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi e, noonu ngeen ko déggee mu bàyyikoo ci e, sëriñ bi wax ni gaaw bii di ñëw nañ ko def bisub tuubal suñu boroom jéggalu ko sàkk ay sarax balonte ak te xëy ci téere bi njàng moomu nag ñu tàmbalee ko ci tuubaa tàmbalee ko ci jumaa ju mag ji nga xam ne kon mboolem li ko wër ci ay daara ñoom seen ndigal mooy nañ ci ñëw ci jumaa ji yeneen barab yi nga xam ne sori na it muy yeneen penc yi fu fu mu fi doon ña fa nekk taxawu ko ca kilifa ga fa nekk te nekkal fa Serigne Touba eh, loolu muy ci biir dëkk bi su dee ci bitti dëkk bi it eh, fu mu fi doon moo xam daarul mooti wala njaareem poroxaan wala yeneen barab yëpp bépp barab boo xam ne jëwriñu sëriñ baa ngi fi Serigne bi mi ngi jaarale ci moom ndigal loole Eh, yeneen yëngutu yi nga xam ne daayira yi ñoo fi nekk ak représentant wu xalif général de murit yi sëriñ bi soññ na leen ci ndigal li laabiré ci it mboolee mbokkum jullit moo xam ne mën na koo ànd ak ñun bis boobu muy bisub jàng alxuraan sàkk ay sarax tuubal suñu borom jéggulu ko balwante ay xaq sëriñ bi mi ngi soññee ci loolu ni ko kilifa yi waxee nag eh, bu dee ci tuubaa ci jumaa ji lay tàmbalee su ko defee waajal bernde ya lu luñ ci man ñu def ko euh, indi ci jumaa ju mag ji waaye yeneen penc yi nga xam ne ñi ngi koy def yi ña ngi ko fay defee it ña leen wër ñu taxawu leen ca ba sëriñ bëgg na bis boobu ña nga xam ne ñooy yore njàng ma ak way néew doole ya fay dem yëpp ñu fekk fa bernde yoo xam ne dana leen mën a teral naka noonu it ci lu génn dëkk bi it bëgg na daal fépp fu ñu koy defee ña fa nekk taxawu leen kon loolu war a nekk gaaw fukki fan ak juróom-benn ci weeru digg wii tolloo ak ñaar fukki fan ci weeru tubaab bi euh, sëriñ bi kon di ko bu baax xéewal ya nga xam ne suñu borom baaxoo woon na bu waxtu wi jotee mu wàcceel ñu ko muy la ci jiit ndoxum jàmm suñu borom defal ñu ko mu teel lool tooy te lewet nawet bi sotti ci jàmm te muurloo ko moom ci boppam it ñu ni ko sëriñ Maam Moor waxe ñu fasal ko ci bu baax fan wu gudd akuk wér ak mottaliku ay yéeneem ndax ku ne xam na ne yéeneem moom rëy na te yaatu na su matee ñun ñëpp suñu ajoo ngi ci biir yàlla na ko yàlla defal ak bëggam bëggu dong yëpp ngi ci biir wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. donc lu ci suñu si waxoon na ko noppi muy ni ñu ko baaxoo defee te mooy ñiy jàng ne ci biir jumaa ak yokku yi ak baas yi bu ko defee góor ñi ak jigéen ñi bañ a jaxasoo waxtu jàng bi nga xam ne suba lay doon ba bëccëg su ko defee jigéen ñi xam ne daan baaxoo siyaar itam ñi muñ la waxtu woowu rek ba ñu jàng ba noppi su ko defee xam ne ñoo ñu mën a jàng. wala ñu ko mënul ca mën a def ay eh, ñaan ñu dem ci wetu sowu ba rek bu dee bañ jox soo jigéen ñi ñu baaxoo indee xewel tam ñu ngi leen soo ñu baax te nu gën a moo ca gën ngir ñu mën koo waajal ñi nga xam ne ñu lañ ko war a jox su ko defee jàng ba noppi tam ñu fas yéene dem ci yokku yi dañ fa lal ngir ñëpp mën faa jëfandikoo incha allah su ko defee daal képp ko yaa ñoo ñëw daal na xam ne boo ñëw ba ci buntu ba daal danga fekk ñu lay gide ngir fa nga war a jublu nga mën faa jublu ba def liñ bëgg def liñ ko war a def ni ko suñ bëggee su ko defee loolu li koy mayee nag mooy ñu fay fekk ci bunt ya ak ñu leen joxoñ fi ñu war a jëm ñu bàyyi ci ñoom xel ci xam ne tam ne ndigal rek moo leen fa bàyyi bu ko defee fa ñuy baaxoo joxe sarax yi tam wala addiya ya moom ca penku ba muy jullikaay fi ñu it ku fa def da fekk ay ndaw itam incha dañ fa dajale lépp kon ñoo ngi jégalu ci kàddu gi di ñaan yàlla ak bis ba ak jàmm def ko ni ko suñ bëggee. kon mbokki dégg ngeen kàddu yaa ngoogu bàyyi ko ci kilifa yi jóge ci Serigne moom Cheikh Mamadou Mountakha ñëpp nu bokk xam ne kàdduy cant la ak kàdduy jégalu ak kàdduy ñaan li war ab jaam di sàlloo sant mbër ma ku sangam may bu santul fecc war ma nu dellu si waat bayitu sëriñ Mbay Jaxate ba mu bale woon ak ñaan mooy naa la may nga ma tuubal naa la lii ma la mooy tey sant lii nga ma may jéggal ma may maati noo ngi dellu di ñaanat bu baax suñu borom Cheikh Amadou taxaa suñu borom yàggal ko fi lool te àggaleel ko yéeneem yàlla na nu yàlla déggloo pastéefam ci barke Sëriñ Tuubaa nii ko sëñ Xaadim doon waxee léegi nag mbooleem kër yi nga xam ne ay ay barab yoo xam ne barab bi sëñ Tuubaa la ba ca bitim réew kër yi sëñ Tuubaa yi ci bitim réew yëpp ñoom itam ñu ngi leen ciy soññ ku dégg ndigal li rek ci ci ndigal li nga bokk yàlla ko yàlla nangul ci barke sëriñ Tuubaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu